to show them to people in Lambai. Cheikh Bamba daal di ñaan ci barkeb nit ñi Yàlla may safiwu kullu ji mbokk yi jërë jëf ci ànd beeg seen réseau DTL jant bi FM ci Touba Ceeñar FM ci Ndakaaru leer gi FM ci Louga daara ji tool beeg liggéey bi jërëjëf itam mbokk ñu topp ci internet bi ci ñetti w point jant bi tv point com ak ñi ñuy dégloo ko seetaan ci YouTube bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax bokki kon ñu am mbégte kon dellu siwaat incha allah rabbi niñ ko àndandoo ak yéen rek depuis ba weeru euh, safar wi teroo ba léegi tamoo rek di ànd ak yéen ci waxtu wi incha allah rabbi en direct foofu la ci Husnul Mahab Tindodi ci li nga xam ne rek moom moo di safar Husnul Mahab Tindodi ngir delloo njukkal sëñ Tuubaa Xaadim Rasul ñu koy amal foofu la ci pencum Tindodi ci jumaa ji ci njàngum alxuraanu karim ak xasaayit ci ndigalu sëriñ Cheikh Mbacke ibnu sëriñ Alioune Mbacke waaye ba safar bi dooree ba léegi itam tubaarkàlla bokki taalibe yi di bàyyi ko fu ne ci gox Tindodi ak li ko wër ñëw di fekk Kesi gudi gu am solo gogule waral tam gudi gu ne inshallah allah ñu fas fa am amal rek ben en direct ngir joko ak sunu bokk ya fa ñu wax ñu wayu liggéey bi kon ñu ngi wax ci ligne bi ak cheikh mahamoudou mustapha ñeng jëwrin cheikh alaykum wa alaykum salaam wa wa barakatuh ñang ñang ñu ngi lay jaar bax jaar sam sam. ñu ngi jaar bax sam alhamdullah naka yite yi. waaw ñooy sant baax ñooy sant baax ñooy sant ah, ana ana di am taw bu waaw ñoom taw fa waa Touba Ousmane moom ñëpp a ngi leen nuyu. ndeysaan yéen a ngi ci e, safar yeeg wàccaayu màggal geeg ya caaju. waaw waaw waaw ñu ci safar bi nii kon asalaamaaleykum wa ah, rahmatulah barkaatu. bisimilah. waa DTN. Mhm. ñu ngi jaar ñëpp waa jant beeg leer gi. ndeysaan. ak ceeñeel ñëpp ñoo ngi leen jaar baax di leen jaajëf baax ci liggéey bi. jërëjëf. di ñaanal suñ Touba suñ Muntaxa suñ boom gën ko fa yàggalu mu ànd wér. amiin yaa rabbal alamin Eh, di ñaanu suñu jàmbaar yi suñu cheikh moom suñu aliou suñu bëngon ko fa yàgg lool mu ànd wér amin amin amin waaw comme ni nga ko waxee rek Ablaye bi bu nekk daal ñoo koy taxawal safar bi ci ci Touba Ousmane Maab mhm. wax dëgg yàlla tey nag muy eh, juróom ñett juróom ñetteelu fan wala juróom ñeenteelu fan juróom ñeenteelu fan waaw kon tey muy juróom ñeenteelu fan ñu ngi ci jumaa ji mhm. di ko fas yéene dund ak incha allah mhm. tey nag eh, daara sëñ Ibrahima Diop moom moo moo moo moo wàcce kaamil nii daara sëñ Ibrahima Diop Ibrahima Diop eh, moom sax moo war a def waxtaan bi moom uh-huh. lan mooy yoonu murid ak ndaw. yoonu murid ak. ak ndaw ak ndaw ak ndaw waaw. waaw ndaw maanaam mooy taxawaayu ndaw si yoonu murid. macha allah. <laughs> waaw solo la boo xam ne moom it di seen thème moom day mel ni xaw ma fu ngeen ko xalaate daal waaye kiimaan la. <laughs> <laughs> thème daal sëñ bi. te tuwaar kàlla tuwaar kàlla. daa daa am solo lool daa seen thème tey bii moom itam bu doy waar la yoonu murit ak ndaw. ak ndaw waaw ndeysaan war taxawaay la ci am ndax xam ndaw mooy lépp moom. waaw wallaay wallaay wallaay wallaay laa si. ndax sëñ Modou Sarr. li def yëpp ci ndaw la ko def. dëgg la. waaw ndax wax nañu suñ na ko wax ne ko suñ Moussa mu ne ko Mbacke mu ne ko soo amee ñeent fukki at kenn dootu wii dëgg la de wallaay ndeysaan moo tax bi amee ñeent fukki at la suñ ñëw Touba ñëw Touba dëgg la dëgg la nga xam ne jëf yi mu def yëpp ak yéeme yëpp yëpp si ndawam la ko def si ndaw la ko defee dëgg la dëgg la ndaw la ko def ndeysaan <laughs> mel ne soxna jaarutu laa tamit si soxna yi waaw jëf yi ñuy wax ne yëpp dañuy dañuy wax maam jaal te fekk moom bi muy wàcc liggéey at néew la fanweer ak ñett rek fanweer ak ñett ci lañ ko xayma dëgg la de jëf yëpp jëf yëpp moom it ci at néew la ko def dëgg la dëgg la wallahi kon mooy wane ne kon ndaw du ci at waaye ci jëf la ci jëf la jëf la pastef jëf la ndeysaan ci jëf la waaw dëgg la dëgg la tuwaar kàlla même sañu mag bi xam nga sëriñ bi jiitu woon nañ ko fi ñu bëri jiit nañ ko fi mhm, mhm. ci xaar jeelaani sang yu baax yëpp sëriñ bi jiitu waaye suñu ne mag bi ñëpp dañ seen xel ci xadim ci xadim lay dem dëgg la dëgg la waaye nekkul at la leen ëppee waaye mhm. jëf ji jëf màgg jëf jëf waaw jëf jéere jëf jéere yi dëgg la dëgg la dëgg la dama moom moom li ma faral di wax dama faral di wax ni sëñ li ko yàlla may waaw mayu ko ko ngir daa sant Mbàkke mayu mayu ko ko ngir day doomi sëñ Mor Anta Sali mayu ko ko ngir day doomi Soxna Jaara waaye da ko may ngir day jaam boo xam ni daa nangu nangu ni jaamub yàlla la waaye wëlbatiku itam topp lépp luy diggéey digali yàlla liggéeyal yàlla topp lépp luy ay ay ay ndigalam ni jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgmal ko roy ko ba am ci tey ay maxaama yoo xam ni maxaama yooyu ci la sunu borom euh, teg tànkam ba may ko li nga xam ne ala kulli alin ba bàyyi ñuy leen dënd bi jamono dootu ko fàtte waaw kon kon kon kon kon kon kon sëñ Tuubaa ni ma ko faral di waxee maanaam may yi ko sunu borom may yépp eh, eh. ma ko faral di wax gaa yi mën leen du ciw sant déedéet du ciw sant du ci du ciw sant du ci juddu waaye jëf la dëgg la dëgg la waaw kon waaw kon kon yëf yi kon yëf yi ndeke kon mi ngi mi ngi ci jëf ginnaaw boo nangoo <laughs> moo nangoo ni jaamu yàlla nga nag nangoo nag topp digali <laughs> borom bi moytu lépp lu di ay tere ni ko xaadim rasul dafee ba am lim am waaw <laughs> lu am solo la ndeysaan loolu lañ dañ ci jàngat bu mag ndeysaan waaw waaw wallaahi soo xoolee suñ tuwaa eh, ay maamam mm-hmm. sancoon ku mel suñ maam maaram moo sancoon Mbàkke dëgg la kon amoon na fi cër mm-hmm. waajuram moo sancoon eh, eh, Mbàkke Kajoor mm-hmm. gis na waaye bi mu bi mu fa nekkee woote yoon bi yéen mu ni murid ndax li boobu murid boppam la bëggoon dafa nekk fa ab diir xam ne lii ay maamam ma ko moom suufam la waaye teewul dafa ko bàyyi dem sañ ci Daaru dëgg la ba ni ko suñu borom wanee Touba ngir boppam. dëgg la wallaahi kon mooy delluwaat li nga waxoon noonu rek. dëgg la ci jëf ci jëf dëgg la. waaw jëf jëf képp la ndeysaan. sëñ Touba sëñ suñ maanaam sëñ Touba day jaamu yàlla boo boo xam ne daa nangu njaam gi. nangu gu daa am solo. waaw nangu gi mooy lépp wax wax nañ ne am na ku tedd bu baax suñu ñëwoon ci sëñ Saliou. waaw. ñu yow sëñ El Hadj Mbacke la daa ñëwoon moom ne ko Mbacke nag ma ñaanal moom ma ma ma mu mën a jaamu yàlla. waaw. waaw sëñ sëñ sëñ Saliou ne ko téema laa ñaan nga bëgg yàlla rek. waaw. waaw ah, nee na soo bëggee yàlla moom jaamu yàlla day yomb ci yow. <laughs> dëgg la. tubaarkàlla. waaw sëñ Tuubaa moom doo ndax ne wax na wax na ko daa niil ixdaam yi nappi hubb zaati yi. ndeysaan ndeysaan ah, ndeysaan. waaw nee na eh, tagg bi muy tagg yént bi. waaw sallallahu alayhi wa sallam maanaam dëgg dara loo xam ne dafa ñàkk ci moom wala dara taxul woon daf ko tagg rek ngir bëgg ko rek. ngir bëgg ko rek bëgg rek. ngir bëgg ko nga xam ne moom bëgg ko rek moo taxoon mu koy mu koy tagg moo tax mu waxaat daa niil ixdaam yi nappi hubb zaati yi. mais liggéey du ko liggéey tamit. maanaam mm-hmm. da ko def ngir yàlla rek nga xam amul benn intérêt. dëgg la dëgg la dëgg la. te loolu tamit soo xoolee murid day day dañ si suñuy julli wala ñuy woor wala lépp lu ibaadaat bi ñu def. Mhm. lépp dañ koy jaamu yàlla yaakaaruñ ko ndax suñ tubaab lañ yaakaar. dëgg la dëgg la dëgg la loolu tamit day delluwaat pastor suuf day delluwaat ci ci ci ci murid dëgg la dëgg la wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan nga xam ne yooyu yooyu yu mat a yu mat a yu bàyyi xel la yu mat a bàyyi xel la yu mat a bàyyi xel la ndax ndax ndaw ndaw dafa am solo sëñ bi mhm, mhm, mooy lépp ah. lépp mooy lépp mooy lépp mooy lépp mooy lépp mooy lépp bindikat yëpp pour nga gis benn bindikat bu bind si waaw sëñ tubaab ngay gis téere mi Mm-hmm. ay désu sixaar ay ndaw mooy wane na ndaw dafa tubaa suñ tubaa sëñ tubaa daa xam daa xam ni ndaw mooy nekk magum ëllëg ndeysaan ndeysaan waaw te ndaw te ndaw ngir mu nekk magum ëllëg danga koy waajal ci ndaw mooy waral bu nekkee mag mu mën a nekk mag mu xam yàlla ndeysaan mag mu mën a topp yàlla ndeysaan ndeysaan ndeysaan <laughs> mag mu mën a defar àddina xam nga dafa am benn waxkatu wolof bu ni wax ma sa ndaw yu penc mu wax la sa ëllëgu réew waaw nee na nee na wax ma sa ndaw yu penc gis nga fi noonu Cheikh Moussa. Hmm. bu la ci kenn nax dëkk boo dem wala réew moo dem. Hmm. xoolal ndaw ña rek nga nga nga nga jàngat ndaw ña ci ci ci ban système lañ ne. nga natt ko nga natt ko fii ak juróom fukki at ca kanam téem ak wala téeméeri at ca kanam te xam ne ndaw ñooñu ala kulaalin mag ña moom ñi ñu ngi ci juróom-ñetti fukki at ñi ñu ngi ci juróom-benn fukki at seen wàll day daal di wéy. Hmm, ndaw hmm. ñi ndaw ñi commencé benn at jëm fukki at ak juróom jëm ba ñaar fukki at nag ñooña nag ngay xool ba xam ci lu ñu ne lu ñu ne rek ala kulaa leen xamal ni ci at yi ñu dëkkmal foofee ngay atti dëkk ba <laughs> <laughs> waaw xam nga moo tax gis nga gis nga siñ mun ku jara ñaanal mu yàgg fi wér la ndax li tax mu taxawal université 37 milliards xam na ni jot na ndaw ñi ñu jubbanti leen defar leen dëgg la ndax ëllëg kat yoonu mu wi ala kulli alin yàgg yàgg ci loxol ndaw ñi lay mujje képp de waaw ndaw ñooñu <laughs> bu ñu leen defarul programme wuñ leen jàngaluñ leen xamaluñ leen lislaam a xamalu leen sëñ Tuubaa ba yëf yi xëy ni ni këpp ci seen kaw boobaa nu muy demee. dëgg la de dëgg la de. kon faaw mu ñu waajal leen ci biir waajal googu naam daaray alxuraanu karim yaa ngi fi. waaw. Hmm. daaray yaa ngi fi. Mm, waaye mm. nag lu baax du doy mun Muntaxa moom daa ñëw moom dugal cëb université bopp naalub Cheikh euh, euh, Serigne Touba la woon ndax bul fàtte bul fàtte université mun Muntaxa bi naalub sëñ Touba la woon. waaye yàlla def na ci loxol Cheikh Mahamadul Muntaxa. ci la ci la ci la ci la ci la sottee. macha waaw te te te jubluwaay bi lépp li mu bëgg mooy defaru askan. am réew mënul am réew mënul yokk lislaam sax mënul am te te amuñu ay nit ñu jub ñoo xam ne dañuy xam lislaam di ko dund di ko doxal ndeysaan dëgg la dëgg la te te loo jàngul loo jàngul mënoo koo tari ndeysaan yor na yor balaa ngay mën a pratiquer l'islam xam li yàlla wax xam li ngay moytu ak li ngay def ngir l'islam jëm ca kanam da nga koo jàng mm-hmm. moo tax nag Cheikh Amadou Muntaxa moom itam foofu mu dugal fa université boo xam ne bu noppee gëm naa ni tey dina bëri loo xam ne dina ko lijjanti ci ndaw ñu jamono ji tembe eh, sëñ ak sa ak sa ak sa dëgg la <laughs> eh, li li nga wax noonu waaw sëñ Muntaxa ci xam-xam lay dox dëgg la dëgg la ndax man xam naa lu mat fukki nit yoo xam ne. sëñ mhm. bi leen tànnoon. Mhm. yóbbu leen Maroc. Mhm. nga xam ne di yor seen njàng. fayal. nga xam ne xet xam-xam yi nga xam ne yu gën a xóot yëpp ñoom jàng nañ ko. dëgg la. waa ngir waajal ndax waajalul jëmm ji rek. waaye am na ndaw ñoo xam ne tànn leen am na ku ñuy wax sëñ Saliou Mbacke moom. moom sëñ Fallou ab Ndam. waaw moom moom xam naa ko ci te moom nee na dem na fa. Mhm. sëñ bi si bopp moo ko yoroon moo ko moo ko moo ko utal euh, paas. Mhm. moo koy fayal foofu lépp lu muy dundee. nga xam ne xam-xam yi soxla yëpp moom moo ngir waajal li nga bi. xoolal loolu. nga xam ne kon loolu mooy wane li ah. li nga waxoon noonu. dëgg la ko fee yàggal lool lool rek. liggéey bi tamit wax dëgg yàlla suñu xel dal na si ndax ñëpp ay ndaw lañ. ay ndaw lañ foofu waaw. waaw ñëpp ay ndaw lañ tamit wax dëgg yi ñoo doon yëkkati xasaay yi. waaw kuréel gu tànk waaw. ndaw ñi dañoo am pas-pas ndax soo xoolee eh, bëggoon nañ ko si dugg sax lu mel ni. Mhm. Eh, sëñ ma sëñ ma Lamine Diop Dagana. sëñ Maam Lamine Diop Dagana waaw. xam nga sëñ Tuubaa bi ñu koy yóbbu moom xamul woon. bokkoon na mhm. ci contrat yi mooy yow fu ñu lay yóbbu yow doo xam. waaw dëgg la. nga xam ne jugee nañ ko fii yóbbu ko Ndar jaar Dakar. doo ci mhm. gaal gi. bi mu dee ba ba ba Conakry. Mhm. Saalum Saalum bi duggoon ci gaal yi moo moo ko xamal ne ko yow Gabon nga jëm. Gabon nga jëm nga xam nga xam ne fa la dégg turu Gabon wi. waaw ci la ko njëkkee déggee. c'est waaw xoolal taalibe bi mu fi ak mbokk yeeg ñoom ñëpp. Mhm. ñooñu xamuñu woon foofu ci sëñ bi nekk. ci sëñ bi nekk déedéet déedéet. waaw ah, di fa sëñ bi nekk ab diir nag sëñ Modou muñ ko muñ ko ne moom daal lii daal moom mënatu ko sama sang bi moom foo mu foo mu wëri ko. <laughs> ndeysaan ndeysaan. nga xam ne yow ki ngay wër xamoo fu mu nekk. Uh-huh. xamoo ndax moo mooy si suuf. Uh-huh. xamoo fenn ki moom. Uh-huh. waaye ñëw woo njabootam yëpp. Mm. ak soxna yi ne leen damay wëri sama sang bi ndax xaw ma fu mu nekk. Mm. te bugg ma leen am ah képp koo xam ne mën nga toog xaar ku ko mënul na dem soo gisaatee buum na na nga sëy. nga tëj tëj tëj tëj am na eh, àllarba jooju ba at na. ba ah. ci àll waat at. Ah. at la am mu doog gis sëñ bi. xoolal boobu pas-pas sëñ bi. ah boobu pas-pas sëñ bi xam ne day dem dëkk. Ah. na jaar na fi dem Gambie. jóge nag. nekk fa di la doon def. ba ba ko di ko génne ba ba àgg sëñ bi. tubaarkàlla tubaarkàlla tubaarkàlla. xam nga pas-pas yooyu ndaw ñi dañ ko war a dañ ko war a jëlaat baax. baax dañ ko war a jël dëgg la dëgg la dëgg la. delluwaat sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa mooy lépp. Mhm. waaw dëgg la de dëgg la de. mooy lépp li mu wax ne yaa yaa maalikal mulki li wasta duuna jawan. Mhm. mulki wal malako dëx yàllaahu. mooy lépp rek. wallaahi lazim wallaahi lazim. dañoo war a dañoo war a xam ne lépp rek. Mhm. li sëñ Fall waxoon rek. jëmm ji moom la ñëpp di wër. moom la ñëpp di ah. wër waaw. waaw ah, ñun ñun ñun ñoo ko am. waaw daan daan ki ñu am kenn amu ko. waaw li ko. waaw ah, waaw waaw suñu xàll looloo ko dañ ki ñu am kenn ko de. Ah, ko nag. Ah. waaw waaw moom kay moom ko yóbbu ko ca ba ba bañ ba naan ruug seen ba jongati du fa jaar di ko yóbbu rek. ndeysaan ndeysaan <laughs> ko fa. ndeysaan ndeysaan. <laughs> Eh, ñooy sant baax a baax a solo macha allah. waaw muy suñu sang bi tamit gis ngeen moom it yéene ji mu am. waaw. soo ñëwee Tundóori da ngay gis naal yi fi na am na barab boo xam sooy dugg. waaw sooy dugg waaw barab la boo xam ne dafa bëgg même xale yi nga xam dañoo jàng. Mm-hmm. dem ba mu yàgg ñu dàq leen seen école ñoo la bëgg récupérer waat. Mm-hmm. jéem a xool nu mu leen formé. waaw am ay métiers ñu am formation professionnelle yooyu yëpp. ay mébét la yoo xam ne. waaw soo dee yàlla mooy lépp wax xam-xam day day daal waaw moom koy mébét ci dëkk bi. waaw tey tey loo ci xamul maanaam sëñ Cheikh Aliou. Hmm. yàlla daa def man damaa seetlu ni ku gëm ndaw la waaw est-ce xam nga loolu maanaam dafa gëm ndaw. te li tax mu gëm ndaw mooy xam na ni ndaw. li ñu naan maanaam. ab mool bu tooyee nga bind ci li ñu ciy bind moo waale ko. Eh. wala miir bu tooy nga bind ci li ñu ciy bind moo waale ko. Eh, ah loolu loolu loolu defe naa bu xasee boobu dindi ko dana jafe de. jeex na loolu mooy waral nag tubaarkàlla kon ndaw moom dèjà loo loo loo loo bëgg mu nekk ko ëllëg rek ci ndaw nga koy defee. waaw loo bëgg mu nekk ëllëg rek ci ndaw nga ko def bañ nañ ko ba alxuraanul karim ji nga ji nga xam ne danga koy jàng sax mokkal ko sax ci ndawam la koy jàng ci daara ji ba mokkal ko bu doon day dund téeméeri at it alxuraanul karim jooju dootul denc ci moom mm, mm, waaw waaw mm, moo tax moo tax moo tax moo tax kon léegi moo tax kon léegi nii bi bi nga nee ma euh, ñi doon yëkkati xasida yi ay ndaw lañ man la loolu mooy wane ni kon maanaam suñu Cheikh Aliou itam ku bàyyi xel ndaw ñi la waaye itam ku gëm ndaw la te xam na ne ndaw ëllëg moo yore yëfi dëgg la dëgg kon nag mat na noo waajal tubaarkàlla macha allah. ndeysaan ndeysaan ndeysaan kon kon ñu bàyyi la nga fàttali ñu programme mu tay bi rek incha allah ak ni ngeen koy ah, doxalee rek tolluwaay kii waaw euh, bi euh, waxtaan euh, ak kaama jeexee. waaw. tout tànk yi ñoo doon jàng suñu noppee tam suñu Moustapha Gaye. mu suñu Moussa Gueye waaw moom moom lañ ko allah waaw moom mooy jàng amal njàngum xasaay yi jàng ci allah koy jàng ci noppee ak suñu Ibrahima Diop jël waxtaan boobu tuwarkal tuwarkal noppee ñu séddale xéewal yi allah incha allah rabbi kon noonu daal lañ koy def suba tamit daa ni ay ay rajas lañ koy def waaw rajas waaw comme nañ kii waaw jàngkatu ñi nga xam dañuy rajas lañ ko lañ ko ci rajas mi waaw mel ni Baye Saliou Thiaw ak ñeneen ak ñeneen. waaw ñoom incha allah dégg suba ñoom ñoo ñoom ñoo ñoo a war a taxaw. tubaarkàlla macha allah. waaw di waajal nag ajuma ju mag ji nga xam ne ñëpp rek ku dëkk Tindodi rek ak ñi ko ñëpp rek dajaloo ñëpp rek ci mm. kanamu ku tedd gi waaw ñaan suñu doom indi ko jàmm rek nga xam ne mm. mu nekk lu ram ndax ni ni nga doon waxee Tindodi dafa dafa dafa dafa dafa am li tubaab di wax euh, trésor caché mm, waaw dafa am meññeent yoo xam ne dañ ko nëbbu. dañ ko nëbbu. dafa jot nag maam ni ñu xam ko. waaw foo xam ne sëñ Murtala teg na fa tànkam. waaw waaw nga xam ne wax nañ ne sax jumaa ji ay jamono doon na doon na jël suuf di ko mel ne ku koy ku koy ku koy ku koy defaral boppam ku koy defaral boppam dëgg la ah, dëgg la di ko tabax noonu ci suuf si noonu dëgg yàkkamte rek waaye moom moom suñu dañoo dégg mag ñi wallaay dañoo dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la <laughs> jamono xam ne ñu baax ñëpp ci la ñekk suñ koy département sanguy tedd yooyu yëpp ci la ñekkoon suñu Abdou Lahat ak sang yooyu mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. kon day dëkk boo xam ne dafa dafa lëmu ni ñu ko doon waxee waaye waaye da daa jot nag ñu mm. ndaw ñi ñu wane ko mm, mm, ah, wane ko baax a baax a baax a baax nga xam ne euh, lépp lu mu yeyoo rek maanaam dëkk bi da ko da ko war a am te ñu ndaw ñun suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu kii la suñu waar lay doon dëgg la dëgg la ci lu wér ci lu wér loolu loolu dañ ci jublu nga xam ne fexe ba ñëpp xam lan mooy Ousmane Maab waaw fan mooy tindoo di ñu xam ko xam histoire bi loo xam ne sëñ Tuubaa si boppam moo ko sañcal boppam te ñu sañcee ko alquran ah mandarga yëpp nekk fi. Hmm. ah. Hmm. soo duggee si kees bi ñu ne la fii mooy kees bi sa sa Mourou Moussa. Hmm. wax dëgg yàlla kon barab la boo xam ne moom moom laay wax ñi dëkk rek ma ne leen ñun de ñun de tawfeex guñ am. waaw leer na ma sooy dox suuf Touba moom leer na jog nga foo xam ne doomu Sëñ Tuubaa jog wër na ko tànkam. wallaay laazim dëgg la dëgg la wóor na wóor na Sëñ Tuubaa maanaam saa dox leer na yow jog nga foo xam ne doomu Sëñ Tuubaa jog. jog na ko loolu mun a mun a mun a am payam ak nag alaxira déedéet déedéet déedéet mënut a am loolu kay waaw moo a daal góorgóorlu baax rek fexe tënku li sëñ bëgg daal ñu nekk si dëgg la tubaarkàlla macha allah ñu nekk benn jubóo di dimbalante di di def lépp daal incha allah loolu rek moo am solo ñang wallaahi waaw loolu rek moo am solo ndeysaan tubaarkàlla Cheikh Moussa jërëjëf ñooy waajal suba incha allah waaw incha allah tamit moom incha allah xam mm. naa dinañ ko guddal bi guddi gi waaw fexe màggal ko parce mm. que waajal ajuma ji ni comme ni ñu ko waxee woon rek incha allah waaw naa di woowaat mbokk juddi bi yëpp mbokk taal bi yëpp mm. ñu gën a ñëwaat ñëw ba gën na ci waaye ñu gën a ñëwaat rek. ñu gën a ñëwaat di leen soññi rek lu baax du doy. ndax mbirum murid dafa dafa islam dafa dafa am doole. dafa dëgg la saa bu ñuy def daal ñëpp julli lu tax ñu def julli ajuma. Mhm. di wane doole islam moo tax. Mhm, mhm, suñ ko wootee. maanaam ñëpp war a bàyyi seen yitte ñëw. dëgg la de. da ngay romb ci mbedd nit di la wax ah yéen di ngeen def lépp sama lan laay tëdd waaye maa koy dégg loolu baax na waaye ñoo la ah, teewaay gi waa nee na fu ñu fu ñu jàng sama xasida yi waaye ñu may waxtaane uh-huh. Uh-huh. jëloon <laughs> ah, leen may waxtaane wala ñu jàng sama xasida yi waaw nee ku du ku deful ni yéen yéen a gën la ilaha illallah yéen a ko gën dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la tuwaarkaal la tuwaarkaal la kon kon kon kon noonu noonu kese la kon ñoo ngi soññaan ñëpp xam ne am na solo wóoruñu ndax wóoruñu ndax day déwén dañ ko dañ koy fekkee ndax dinañ ko fekkeem déet fekkee déwén kon li ñu fekkee rek ñu fexe ba góorgóorlu si sàmm suñu kii te murid dafa war a ruus a def def lu baax waaw waaw dëgg dafa war a ruus maanaam war waru ruus def def lu baax waru ruus def lu baax waru ruus def lu baax léegi soo xam ne day jomb di wax maa jàpp ne ab yeeg wala tolluwaay déedéet dañoo war a bàyyi suñu yitte ñëw ñu jëm seen Tuubaa wuy ci dëgg la dëgg la dëgg la dëgg ndax moom amoon na Tuubaa am lépp te teewul li ñu bëgg xettali daa bàyyi lépp ngir la nekkati jàmm. tamit war nañ delloo ko njukkal. delloo ko njukkal rawatina boo xam ne lépp dafa sell nga xam ne suñ ko defoon sëñ bi su ñëwaat na cëpp. Mhm. kenn du soppi ni mhm, mhm, wax dëgg yàlla la boo xam ne ko wax dëgg yàlla bu kawe njort lool daal lépp kenn la xam ne alxuraan lañ koy jiitu ñëpp def sàppe tout temps wax dëgg yàlla lépp ñu yor seen kurus soxna yi am lépp rafet daal njàng xasida bu wér eh, waxtaan wér taniw leer yoo xam ne kii wax dëgg yàlla loolu moom moom moom moom mooy delloo njukkal dëkk moom daal waaw mooy moom moom moom mooy turu niñ ko tudde rek safaroons nul mahab tindoo di ngir delloo njukkal sëñ Touba waaw <laughs> mooy li nga mooy li ngay wax ni maanaam fi noonu yéen li ngeen fay def lépp li ngeen ci junooy delloo njukkal Sëñ Tuubaa rek teb maanaam commencement ba fin lépp thème bi mooy delloo njukkal Sëñ Tuubaa. waaw waaw waaw wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay. amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin amiin. di ñaanalaat télé rajo bi baax a baax. waaw jërëjëf gën a defaat koy fas baax. amiin waaw di xasida waaw tubaarkàlla ñaan tamit seen sang yooyu suñu borom gën leen di yàggal. amiin amiin yaa rabbal aalamiin suñu borom barkeel seen liggéey baax a baax a baax a baax. amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin ci safar bi nga xam ne ñoo ko amal Touba euh, allah. jërëjëf Niang. Euh, jërëjëf tubaarkàlla macha allah ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax Cheikh Mahamadul Moussa Niang foofu la ci Tindo di ons nul mahab àndu nag moom ci juróom-ñeenteelu fanu safar gi ñu koy dundal foofu la ci Tindo di <clears throat> doore ko ci benn fan ba ba léegi muy safar ons nul mahab Tindo di ngir delloo njukkal Serigne Touba tem ba tey tubaarkàlla di ndaw ak yoonu murit bokki loolu am na solo ndax euh, ala moom yii fi yàggam yàggam ci loxol ndaw ñi lay mujjee ndaw ñooñu nag nga xam ni ëllëg ñoo war a jël euh, relève bi ñooñu kon tubaarkàlla jar na noo waajal waaye lan moo war a nekk ndawul murit euh, ngir ëllëg mu mën a egg ci saadeex ji loolu lépp nag tubaarkàlla yaa ngi koy waajal ci ba ndaw li nekkee ndaw bokk na ci nga xamal ko mooy kan xamal ko ki mu doon xamal ko kan mooy sëñ Tuuba xamal ko yàlla xamal ko yonent bi xamal ko alxuraanul karim xamal ko boppam su ko defee dana jomb dana itam xam li mu war a def ak li mu warta def xamit lim sañ ak lim sañul xamit ki mu doon la macha allah mbokk yi lu am solo la kon daal euh, mi ngoogle euh, nañu kon la gën a bàyyiwaat xel ndaw ñi ci jàngal leen yar leen gën leen a teg ci yoonu siraatal mustaqim te ndaw ñooñu ëllëg tubaarkàlla ñoom ñooy magi diine ji ngir nag ëllëg ñu nekk magi réew mi nekk magi diine ji mën ko yor coorin wu gën day fekk ba ñu nekkee ndaw waajal nañu leen waaye àlakulaalin bu ci loolu amul itam àlakulaalin ci ay jafe-jafe rek la ñuy dëkk loolu nag yàlla na ci yàlla musal kon jërëjëf Cheikh Amadou Moussa jërëjëf waa Tindo doon sunu maap kon safar gaangoog leen ni ko Cheikh Moussa waxee nag am na solo te mooy tëdd gi sa kër di ko déglu ci rajo bi wala tëdd gi sa kër di bàyyi xel xasaayit ya waxtaan yi am na solo waaye teewal sa jëmm nag moo ci gën a solo te xam ni jàpp naa ni fi mu ne nit mënul def ci biir kër lu gën a am farata ci jamono jii teew ci bërëb bopp dañ fay jàngi alxuraanu karim bërëb bopp dañ fay jàngi xasaayit bërëb bopp dañ fay waxtaane lu jëriñ jullit bi di fa waxtaane sëñ Tuuba ci guddi yu ñu toll jàpp naa ni nit amul yitte ju gën a kawe jooju ju muy def ci biir këram lu mooy yitte yi mën a dem teewe ji loolu ci loo xam ne ngànt amul kon loolu kon ñu ngi ci bàyyi loo xel kon bokk yépp tubaarkal la te xam ni itam li ma koy waxee yu mel ni moom teewe ko dafa am solo ndax tànki dem ya ak dikk ya lépp njëriñ lay doon tuyaaba lay doon defe naa tuyaaba moom ala kulaalin jullit bi ba mu juddoo ba ni muy faatoo ñu koy teg ci kuusu bàmmeel ala kulaalin tuyaaba du doy te ba muy faatoo ñu ne ci biir bàmmeel itam teewul itam ñi mu bàyyi ginnaaw dañuy wëy di ko ñaanal tuyaaba joj di ko fekk biir bàmmeelam kon ndeke kon ab jullit moom ci boppam moo dul doyal tuyaaba ci dundam akuk faatoom ak fekkeem akuk wuuteem kon nag teewe safarons nul maab tindoo di loolu tuyaaba la joo xam ne kenn xamul ni mu toll kon nag tuyaaba joj tubaarkàlla bokk yi euh, nañ ko màng bu baax a baax am na solo jërëjëf si amul Moussa jërëjëf bokk ñu doon bàyyi xel kon incha allah dig daje niki suba ak jàmm ci beneen safara ons nal maab tindoo ngir delloo njukkal Serigne Touba Khadim Rasoul ci présentation mi seen mbokkum taalibe ndongale Abdoulaye Samba askanu ci déglu bi gërëm ñi ñuy bàyyi xel itam ci jant bi TV wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Bamba daal Xaadimu Rasuul fi Suudaani ما يرم قرن بي أميرا